woon loxo Ousmane Sonko loolu yi na ko waxee Assane Mess rek kon bàyyi na bis ni ki tey rejoindre na ñi nga xam ne ñoo Ousmane Sonko kon euh, muy Déthié Fall. waaw am na solo Déthié Fall moom mënuñoo wax ne dafa tras trace nan. mënuñoo hmm? wax ne dafa trace dafa nan. agré transhumé transhumé voilà mënuñoo wax ne dafa transhumé ndax it fii réew mi egsi nii dafa bokk ci li ko fi indi. Uh-huh. ndax dafa ànd ak. Ousmane Sonko ñu ñu àndaloon xeex ba falu uh-huh. loolu moom ñëpp gis nañu ko kon mënuñoo wax loolu kon tey jii bu fekkee ne toogaat naag Ousmane Sonko waxtaan ak moom mu ñëw Ousmane ne ko ñëwal ñu liggéey mu ñëw par jàpp si li réew mi pour liggéey Sénégal jëm kanam looloot mënuñu koo ñaawlu. Uh-huh. mais daal moment yi nga xamante ni def na ko si moment yooyu la ko wërtoon a def. lu tax ndax mënoo taxawal coalition. tudde ko sàmm sa kàddu. Uh-huh. dajale ay nit. defar sa liste dugal say nit ñun defar seeni liste ba mu àgg ba ngeen war a jóg si campagne ñu ne campagne baa ngi tijji nga ne bàyyi naa. Hmm. est-ce que la ñu waxante woon ak moom sàmm nañ seen kàddu. non non buñ lu mu mën di doon it. ndax nee na dafa dem ba doxin wi. Hmm. xamatu lan la koy nuru. non doxin wi xamatu lu ñu koy nuru mooy leader yi affaire bi munoo xam ndax it coalition loolu munu saa ñàkk. Hmm. coalition moom liy jafe-jafe bi mooy tànn mais comme que tànn nañ ko te yaakaar naa poste ko jox baax na. poste bi lan. moom ñu ko jox. ah position bi. position bi ñu ko jox. neer position. biñ ko jox xam naa ne baax na léegi nag lan moo des ba tax moom mu daal di jékki-jékki bàyyi leen. daal di dem doxin wi moo moo non non doxin wi bu kii mu ànd ak kii nit nee ñu waroon a may temps yi ñu liggéey. Mm. Euh, ñii dal ci kaw nguur gi di def ay actes yu doy loolu xamoon na ko de. xamoon na bi ñu def coalition bi. affaire bi taragul woon def bi la a taragul woon non non non boobu affaire gën a tàng. déedéet boobu Bart waxagul woon. Euh, Pape Djibril ni muy waxeegu ko boobu kenn do nga fi nekk di wax muy euh, nen neen baxa la doon bind. kan mooy neen baxa moo doon bind léegi nag yii mu gisaat après yi xewu attaques yi fii <laughs> ah attaques yi bari loolu moo tax comprendre mais bi muy nekk. nen baxal ak kii. kan mooy nen baxal mën a xam. <laughs> alaaji ba li nga def monsieur commentaire. ne baxal. bi nen baxal buy dafa jéggu. dafa jërul jéngu li ma moom attaques yi daa daana am mais ci kenn la woon ñoom Pape Djibril ñëpp ci semaine yii lañu génn di wax ak Pape ji ak kii euh, waaye mais nen rek moo doon bind. ñu jàppale ne nen mbind mi ci mbind mi la yem ñu dem ba yàgg muy wax ñu dem ba yàgg muy tibb tànk ñu dem ba yàgg nag muy muy muy muy def bras de fer ak ñi nga xam ni ñooy homme de tenue. bismillah waaw waxoon nit moom moo mën a wax si loolu mais comme ko waxoon nit moom loolu dama si mën a sori. waa kon ñëwal kon. mais daal mama yii nga <laughs> xamante ni. Hmm. président Déthié Fall bàyyi na sàmm sa kàddu. Euh, dem fekki Ousmane Sonko. Hmm. si moment yooyu mën naa ne kenn seen lider ñu ngi ko jàpp dugal ko si kaso bi. Hmm. fi mu nekk ni moment yi mu waroon def mooy nañ taxaw ba buggaan génn si situation yi ba noppi buñ génnee situation ñu def conférence de presse ni ko nag ni nag wax dëgg yàlla. comme que nii la mbir mi demee ñii ngi dem si kaso bi coow laa ngi bare ak yooyu damay démissionné bu démissionné ba pare nag après giseek ak Sonko dem présenté ko mais dafa dem def gisee ak Sonko bañ waxtaan lu leer ba pare mu doog a ñëw daal di ni bàyyi naa leen wax dëgg yàlla moment yii mu ko def ñu jëm si ay élection ñëpp daw wuti si yi. Mm. di waajal mu bàyyi leen fa nag wax dëgg yàlla waru ko woon a doxee noonu. d'accord waaw. Euh, dama seetloo ni waa PUR seen ñaari ñetti daje yi mujj yëpp ñëwuñu démb ak bërki démb ak keroog. Mm-hmm. Euh, dafa ñu jàngal. waaw xam nga li ma la wax. Euh, Ousmane Sonko mii ak. ak waa Pire te woon soo mi ngi tas parti bi léegi ronqi na. tas na ko bu yàgg. ronqi na dëcc te am na ñu naan ak mi ngi ce que du waxtaan ak Mara. non xam nga xam nga xam nga li seen problème dëcc bi li doonoon problème ak Sonko. Hmm. ak sëriñ bi li doon problème ak Sonko mooy ñii dañoo falu nekk ci dossier yi maam woote wuñu hmm. demuñu lijjanti kenn muy dañoo nekk ci réew mi ñeet yaakaar ni hmm. ñii dañoo def yëf yi cuuj bu ànd ak ndeyam bu foree dara day daw. Mhm. dem mais su demee ba lekk ko pare day ñëwaat ci ndeyam. waaw léegi nag ñii bi ñu bi ñu bi ñu toogee dañoo yaakaar ni ñii dañuy def yëfi cuuj moom it ñu toog ñoom it seen bopp bi ñu téye seen bopp téye seen bopp gisuñu lu ñu xam mais ñu ni nañ dem defi coalition ni ñoom. d'accord après nag bu kii ñëwaatee ni leen damaa ñëw seet si leen bi ma faloog léegi li tax ñëwuma fi kat. mooy réew mi fi mu tolloon si ay dossier ak ay nangam si la concentré woon mais comme que yenn yaa ngi lijjantiku yenn yaa ngi nangam ñu ngi jëm si ay élection pour ensemble bi léegi nag damaa bëggoon ñëw ñu waxtaan ndax xam ne réew mi fi mu egg si yéen la. d'accord ñun ñoo àndoon di xeex ñun ñoo àndoon di nangam lan moo tax ngeen xeex ba jël réew mi bëgg bëgg ko bàyyi ak ñëw leen ñu liggéey. d'accord comme ko ci wax da ngay nangu. bu ko waxee sëriñ bi sëriñ bi dañ ne ko li nga waxee dëgg man nag xamee mu ko woon ni léegi amul problème bu ko waat ko d'accord élection yi nañ ko rëbëje ñu rëbëje ko dañ koy jaxase organiser waat hmm. ndax coalition yi yàqu na Déthié Fall mi mënut a génn ne yàq na fee da yàqu ak ban bu Macky Sall bi am na ki toppoon si am Amadou Ba kam tegoon ñu topp si kay yàqu na eh, kooku mooy kan ki toppoon si Aliou Sall bàyyi na bàyyi na waaw te listam mënuñu ko remplir léegi Macky Sall magi démb yi Hmm? Macky Sall moom si Macky la dem daa bàyyi si Amadou Ba dem si Macky Sall non Ba daa xulóog foofa Macky Sall géej waay xulóog Amadou mooy tax ñu dàq élection yi dama ne liste booba dafa yàqu liste bi yàqu liste yi lu ci yàqu bu ñoom sàmm bu ñu gàñee décce day doon député léegi nag mooy xam banaan sama député jël leen wala bu leen jël mais day doon député même bu campagne day doon député loolu du yoon. loolu teg loolu Déthié Fall laax sàmm sa kàddu bu gañee waa léegi Déthié day doon député même bu sa bokk day doon député. Eh, mais après am na lu mu lu mu ci wax. am na lu mu waaw leen dindi leen mais bu leen dindi wuti day doon député. waaw non dañuy bu ñu nekk député. day démissionné ki nekk ci euh, ki topp ci kawam. Hmm. ñu ci après jël poste bi. non léegi kay nañ nañ ko defaraat rek. nañ yow léegi moom ne moom résoudre na problème bi a indi problème. problème bi dañuy dàq élection yi defaraat liste bi. yow pour yow sax dañuy dàq élection yi mën naa def benn effet. defaraat bañ a def effet. Ah, léegi Ousmane na fëgg taabal ni Assane lu ñuy wax nii. waaw ah, ah, léegi ubbil campagne boobu. jeex na. <laughs> dàq élection yi defaraat ko. Ndiogou. Mhm. Euh,